Fasa Fasa ah waaw pare nga. ayca ayca. ah man ah. de. yéen a ngi ci wàccaay. waaw. ah waaw. sëñ bi wokk na de. ah xoolal lii moo ko wàcc. wàccu waaw waaw wàccu ba xeeñ mu sax. ay leen ko hôpital. ay pat rek lay wàcc. Ah, ah, moom laay xalaat nii galaay. waaw. lu ko dal moom lan la wax ni moo koy metti xam naa daal moom lu ko mën a dal examen bi ci la bokk. examen. Mhm. Eh, luy luy examen. day def examen. sëñ bi daal lan mooy examen laa wax. examen kay kuy jàng koy def. feebar examen di géex nii. oh wow wow wow. estomac estomac estomac bay métti. moom la moom la moo koy def loolu. léegi xam nga nu ñuy defa mm, eh. danaa jaar fii ci Mbaye. docteur Mbaye. Ah. ma wax ko mu ñëw. xool dimbali eh, bul fàttewaale weeram yi yu weex yi ma waxoon. ah loolu yu weex naa ko jëli ci kanam. waaw ah, bu soobee yàlla waaw waaw waaw. waaye wopp na de. waaw léegi baax na danañ fa jaar léegi man ñoo ngay dem ca ngénte la dégg nga. waaw waaw ah, ok. incha allah baax nee na nag. Eh, li mu bëgg a barkeeloo. Eh, ganaar gu nu saaf. ak salaat. Hmm. su bari ak ak ak ak soble si kenn du ko togg dañ ko ci wasaare rek. moom loolu waaw loolu mënu fàggul. ah loolu la ko ko fàggul. ki nga xam nga lu ñuy def. Ah, kii mm. bi kat wax dëgg yàlla. Ah, loolu moom foog ñu defal ko ko. téyel lii gannaaw yow yaa aaye. Mm. nang fi des nga defaral ko loolu boo ko defaree ba noppi nga jël taksi fekk ñu génn la dégg nga mm. jëlal fii junni yaa may dégg. léegi ñeenti téeméer nga jël ko ngir sa paas li jël boo ñëwee delloo ma. après nga fekk leen fi. yaa aye nga naan ma ñu dem bale. waaw mais eh, bi kenn du ci werante jël li euh, man mbiru sëñ bi laa la wax de. dégg naa. lay xaare temps boobu yëpp. ñu àndandoo kon. déedéet mbirum sëñ bi kenn du ci teg baax ma ngay alko de jëlal lii. tëyal tëyal tëyal bul polémique ok. léegi yow defal loolu dégg nga. xam nga lu tax nga koy jox junni sax pour muy dem marché. junni li ma la wax daal liñ ko def mu neex la liñ ko def mu naqare la liñ ko def ndax mini sëñ bi la. da koy mën a dagg maa ngi yow. eh dama lay xëpp wàcc wàcc sëñ bi laa rek xëpp léegi. da ngaa perte. da laay bàyyi rek. nañ dem da ngay dem dégg nga. defal loolu te fekk ñu fa. yoonu jàmm. oui man. boole. yow nga may sax paanu mbali. bu ñu fàttee met met met médecin. bu ko fàtte de. sëñ bi di léegi mu gaañu am tuuraay la wàcc. xam nga laa bëgg nga rek du ma sa morom dinaa la këppal lii nga mel ni ku xelam dem nga ko ay wàcc mel ni ku yor lu baax sëñ bi bëggoon ma lekk ko ci dem koy lekk man du ma sa laa la wax koy waxee du joxe mel ni këppkatu mbalit yi yow ngay bordel ba mag naa ma këppkatu mbalit waaw man nag këppkatu mbalit ma waaye yow imbe bordel bi nga doon ko naree dem man mii maa war a gaañu man amul ma askan wi benn njariñ. dundal balaa ko demee bul dem mukk. léegi tool yi. sonn naa lool waaye sonn naa lool. lu mu xam naa ko lool. xam naa ko de. waay. waroo wopp de. boo wopp rek Sénégal bopp. sonn naa lool waay. waaw ah, dafay biti dafay biti. mbaa yaa ngi fi. Ah? Ah, xam nga xam nga li ma wàccoo bari. wàccu ma nekkoon de. dama ko génne. gis naa wàcc. waaw ah. moom naa am na lu ci àndul lekk sax. Ah, ah, am na loo xam ne daa mel ci yow la bàyyi ko li nga wàcc. waaw hmm, mbaa boole moom la ma waxoon dem nga ko. ah. moo mbaa la ma la waxoon. na ko rek. waaw waaw waaw na ko. ba mu dëgg. mbaa doole na. na moom. waaw waaw. na salaat. am na salaat kay. waaw. soble sax. soble si mën naa mën naa bu ko kenn togg de. ah de toggul ko toggul ko dañ koo ah, kii noonu rek. nga doon damaa sonn lool waaye. waaw loolu moom am na. waaw ah, loolu xam naa nag. moo ñu doon lekk lépp. moom kay li nga wàcc lépp gis na ay bul rek nga ko. waaw ah, saaf nañ ko. saaf nañ ko waaw. doole na. waaw doole na de. doole na lool. alhamdulilah. soble sax. soble si waaw am na. noonu naa bu ko kenn togg de. ah de toggul ko ren ko. waaw toggul ko. déedéet. kon dana baax waaw waaw. am na salaatam. am na lépp sëñ bi. waaw waaw. xam naa ne euh, ko ko saaf. jamono xaw ma ko saaf sëñ bi xaw ma saaf. waaw yooyu contrôlé la. maa maa ngi ko ah sang bi noo ngi siyaat baax barika la barika àkkal ah, suñ sëñ bi la. sëñ la waaw waaw. ah waaw waaw waaw ah yaa ngi médecin ah, na ngeen ne dañ naar jàll naar jàll bu laajee ay opéré yëpp daal lépp ñu ngi salo ah yëpp daal mu ngoo daal bul ci sikki sàkk yow opéré rek opéré fépp yëkkati mu jóg mu jóg toog yëkkati mu da nga koy opéré non opéré ma alaay kon ah, ko xool opération taw. ñu baa ngi daw bu baax. waaw day daw bu baax si bi daa feesoon dell. am ci ay gàmm la defal ay gàmm. moom kay métti na ma. suñ mësta wopp. Hmm. mësta wopp te fi ne bu tëddee daanaka réew mi yëpp ay feebar. voilà si biir rek si biir rek boo dee rek nga def. dëgg ah. ah, ah, la dëgg am na sax su lay baax mu tëdd wala. waaw waaw moom kay ah maam lii xam naa ko yooyu ah. soxatal bu baax. soxatal soxatal. tey ma ko soxatal. non non moom rek mooy soxatal ah moom mooy soxatal. ah yow sëñ bi moom xanaa du farataal di futin de. futin moom dafa araaman moom daanaka du ko def. futin mbaa looloo ci feeñ. waaw moo bëri ci yaram bi. Ah? graisse waaw moo ko soxla moo ko soxla waaw moo tax mu ponkal kay. léegi nag lenn rek moom naan. Ah. sëñ hmm. lépp lu jëm si wàllum xorom fi mu ne nii. Ah. da nga koy bàyyi. Oh. maanaam lu ci wàllum lépp lu saf. Hmm? Ah, na ko bàyyi te niin maa kay. tension bi mooy yéeg ba ya xanaa xanaa loolu dañuy bàyyi ba ëllëg. tey lay commencé. tey lay tàmbali sëñ bi demoon ngoonam tey jii. lu saf lu ne loolu laalati fi mu ne nii sa bakkan ak ci xol. xanaa yow de lekkuma dara. amul solo amul solo waaw am nga sunguf. sunguf waaw waaw am na fi. waaw utal ko sunguf. waaw nga yëngal ko defal ko ci suukar di ko jox muy naan. na nekk dundam. jarta toog mu di ko dundee. na nekk dundam ah, mu di ko dundee. moo gën a baax jërëjëf médecin ah. ko aaya nga bu ko defee li ne ci kër gi yépp ma barkeel loo jërëjëf maa koy jëfandikoo rek alhamdulilah góorgóorlu bu baax góorgóorlu rek kon sëñ bi man maa ngi ñëw daanaka dog dog moom jot sëñ bi déet man ah may ma tuuti rek am na lu ci defaroon ngir moom mu waroon ko jëfandikoo il faut nga toog xaar après moom loolu yi moom moom moom. loolu moom mu mën a yéen jëfandikoo. ndax gannaaw yi moom waruñu maa njëkk a jëfandikoo. Ah, waaw kay waaw ah, kay toogal na toogal na sunguf gi tey maa def lépp. non defal defal ko lu yem rek. defal ko lu yem rek. waaw defal ko lu yem. ah sëñ bi yow yéex naa ñëw. sëñ bi moo tax muy wàcc rek. lii nag dafa baax baax na lool si yow. ah nee ko farataal di yëngal rek di ko jox. Ah, day day day wuy ci moom ay ay yàpp yàpp sax daanaka sunguf yàpp la rek. daanaka xanaa ma indi xéwal gi nu nu ma am xéwal waat ay demal ne demal ne demal ne baax na sëñ bi tey ma laa dolli sunguf tey ma laa dolli sunguf dolli ko ay xanaa ma dolli la sunguf ah, eh, lii de la ñuy wax wërsëg waaw wërsëgu jaam ah. ku tey ma jaay see war koo gërëm daal que sëñ bi moom nii la. nii la di fajaate da ngay fas di fajawaat. te sëñ bi nag yii rek la doon topp te yii baaxul. waa ca bismillah naan na ko daal. ku aay nga nag bëri xam-xam moo ko doon woon la. ndànk rek sëñ bi. Ah, ah. sëñ bi bon appétit. su ma wut mel na ni maa ngi tane. ah tane ko tane ko fan. mel ni. kii kii su ma si wàcce na wàcce na tension de boo ko yëraatee. ah sunguf bi bi. am dana la suñ am sunguf maqal rek. def nañ suuf waaw waaw c'est ça. waaw ndax nag. waaw yow docteur nga docteur la ma ne am docteur Sow. ah docteur rek bindoo ordonnance di jox suñu ak yeneen. garabu olof bi ñuy nit. garab tubaab bi sirop yeeg yooyu. su ko defee olof bi yooyu. xam na def ko sirop. dëgg la comme fi mu ne daanaka suñu ji. non sirop la waay waay waay ma ne fichier. mu ne fichier laa ko wax. yaa ngi mel ni. tubaab bi dañuy jël trente minutes mu doon sirop. ah ñaar maa dëgg din. dëgg mën a din la. médecin ni nga fajee. man rafetlu naa ko lool ndax nit ki doo doo ko naw ba di ko wax lu koy dee. waaw yàq benn gaaw. tey ñax moom salaat bi tamit bu ñu noppee. Mhm. salaat bi bu fekkee mën na koo lekk salaat bi baax na ci. ah ah salaat sax bu ko waaw jël ko. Mhm. mu lekk rek sax mën na. fan yii yëpp yële yële lekk ah loolu mun na damam damam suñu bi daal mu gën mu gën doon la sungu